dua botol yang tetapi kerana lahan banyak kok kalau jomu banyak kok kami ingin lebih botol habis kesempatan dalam masjid Tangka sung pa Allah si mo jokko her Yo de ke no Nen het ache

France woon Amérique woon Italie foofu la ñu jëm soxla jëm. sëriñ bi maa ngi leen digal borom kër mu dalal leen mu leen di leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di wax bismillah dëkk wala ñu ngi leen di wax bismillah it ci jiwaat bi yëpp wala ñu ngi leen di wax bismillah it ci dëkk bi yëpp wala ñu ngi leen di wax bismillah it ci kër gi boleh tu nanti dia ni macam tergi terpayap lah. Boleh ni dia tu aku bismillah. Boleh yang gubernur aku ni anda lihat. Kalau mau kalau mau arjuno boleh kita kau hamil anda ke aku mungkin cuti. Kalau mau te moo aar daal ak képp koo xam ne da ngeen koy bay ci ginnaaw moom dikkul sàmm de sàmm ndëmb sago ma ne yéen ñëpp yéen a bokk jéem a di donna la xam koy dem bi ne bismillah ma ne yéen ñëpp daal ñu ngi leen di dalal jàmm ak di leen di wax bismillah yéen mu gàll ceer ma man doo mu ne ci kër sëriñ bi ceer Mouhamadou Amine Ly bismillah man ma ne ñu ngi leen di wax bismillah yéen ñu ngi leen di wax bismillah yéen म्हणजे एक आपला एक पल्ली Ei, deixa eu... Mata, mata, mata. Pá, pá, pá. eyyi o wi e, kanko nelaɗo mo président de la république macky sall neli ablaye salli sall kanko joni ɗon jonini ɗo hene laamu sénégal I don't know. I, I don't know. waaw sëriñ bi nee na na nga wax pulaar. te mbokk yi ci ministère euh, Ablaye Sall li Sall. مولاي ميغا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مولاي سونو موك تي